salaamaaleykum sama gars yi que vous allez bien Hadjibou Soumaré dafa am lu mu laajte ci Marine Le Pen xaalis bu ñu ko jox 7 milliards 900 millions convoqué nañ ko sûreté urbaine ci ndigalul procureur Ousmane Sonko porte état bu Sénégal porte plainte contre X waaw Amnesty International ci 14 personnes yu fi ñàkkoon seen bakkan ci événement mars yi ñoom it porté waale nañ plainte président Macky salla nga woo amadu Ba ba bam ñëw di ko laaj ndax njëkk yi mu fixé woon homologué woon ko ndax njëg yooyu ñu ngi koy respecté maa nga laa bëgg a yëgal président ne Sénégal lépp a yokk ba mu des salaire yi te en attendant ci ñi am salaire laay wax ni voilà euh, kon euh, na mu tudd ci euh, Sénégal léegi boo amee problème wu rein mën nañ laa defal transplantation fii ci réew jaaraama suñuy suñuy jàmbaari médecin hôpital Fann am na ku ñu fa dénkoon fa ñuy denc garab yi pharmacie ba mu daal sàcc rek di yóbbu ndakati waaw Grand Yoff moom benn ñu lakk ko xaw ma dafa lakk xaw ma dañ ko lakk ba mu jeex daal ba suba ak